na ko Ameth Lo gëdd na ko ma yëg Ameth Lo gëdd na ko Ameth Lo gëdd na ko Ameth Lo dafa ñeme Ameth Lac Rose lu leen jotale ñoom ñaar luy seen problème ñoom ñaar waaye Ameth Lac Rose ku mën a suivre ci li muy def la mu ngi ne tekki di suivre eh Ameth Lac Rose eh Ameth Lo defal na quatre appui quatre appui quatre appui quatre appui la wala lan la wala lan la ja am na loo Lac Rose daan na Ahmed Lo ay waay doomu Modou Lo bi daan nañ ko ay waay daan nañu doomu Modou Lo bi daan nañ ko gat appi tayul excès de confiance ne tekki di suivre eh Ahmed Lac Rose eh Ahmed Lo defal na gat appi